clip kuy way Serigne. Mhm. photo Serigne bi ngay indi. waaw gisuñu photo. waaw gisuñu photo yow yow c'est toi même qui sait xam nga yaa jël personnage def comme li mu doon def di bind alxuraan. non fii gars yi nee nañ alifun baawun taawun nga fi bind. non mais yow tamit man lu yow ah, yu ma damay def naasiril xaq bil xaq. i man man man man yow tamit. non euh, a yow nag doo tijaan buy wasifa. waaw mais la fekk allahuma salli ala sayyidina Muhammad. dina la fekk ngay jeexal a lil faatihi limaa ughliqa wal والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه وسلم حق قدري ومقداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله mais taalibe non jarul ma lay laaj ndax di ngay julli parce que <laughs> lii moom ku ko mokkal xanaa ñi woo bañ a julli gis nga ci waaw mais ci biir vidéo bi aussi dañuy gis ni souvent gars yi dañ lay jël ah. nga ñëw defal leen gesta waaw mais yow toujours bii mooy sa deuxième fois. sa choix di dal ci euh, Baba Seydi. waaw Baba Seydi Baba Mbengue Baba mu nekk euh, ma koy fàttali téléspectateur Walfadjri euh, il fait partie des révélations il chante très bien. Uh-huh. li ñu naan rek bu heure jotul. Uh-huh. jarul jëmm di jëmm di jóg. Uh-huh. na xaar waxtu wa mais instant bi lan moo lay pousse souvent loo gis ci baaba waa <laughs> loo du du question gis baaba sa Baba sama produit la man. Baba maa ko wayloo maa ko dugal ci way. ok Baba maa ko njëkk jox micro maa ko njëkk a dogal dugal. maa ku njëkk a yéegal kaw chaîne mhm. mu nekk nag sama doom nekk mhm. sama xarit nekk sama complice parce que koo xam ne loo avancé mu xeeb. Mhm. aussi baaba nit ñi ñoo def choix ci man di ma invité ci seen morceau. Mhm. mais man sama choix baaba la. baaba la <laughs> waaw ok c'est une bonne réponse right now c'est une bonne réponse eh, merci beaucoup Secka ñu ngi kontaan ci bu baax ci invitation bi. waaye du ñu fàtte ni citoyen sénégalais nga. waaw tey ana lan nga gis loo xam ne ak pàttali na ci sénégalais yi. rawatina it ci lu ñu diggee woon ci ñi nga xam ne ñoom la ñu jox ñu yor réew mi. waa li may wax daal mooy réew mi comme ni ma la ko wax depuis ci commencement ba. Mm-hmm. am réew du dox waa réew maa koy doxal. Mm-hmm. ak nag nañ jëf nag te bàyyi wax ndax wax du yor réew. Mm-hmm. li ma bëgg mooy kenn ku nekk ak foo nekk parti boo mën a bokk. boo xamee lu ma a avancer. xaar ku la woo. parce que bu suuxee sa réew a suux. comme bu jëmee kaw sa réew jëm kaw. bien sûr waaw. Euh, bokk na ci li nga xam ni te bon citoyen loolu lay uh-huh. tontu. Uh-huh. waaye nag euh, jigéen ñi dañuy sa xarit. te bu ñoo def émission ba mu jeex uh-huh. te waxuñu tuuti ci jigéen uh-huh. avec la complicité de Ramatoulaye nous allons terminer avec la vidéo de Seka bi mu ànd ak Baba ci jigéen uh-huh. waaye te am na ay kàddu yu neex yoo leen di faral di wax nga ni jigéen na topp yàlla ak yoneen ba aha non da koy wax benn par benn Seka dama naan jigéen na topp yàlla ak yoneen ba topp borom këram te muñ yanam ba te muñ yanam ba waaw bum di ñaaw njorte ko dox di fiire bum di ñaaw njorte ko dox di fiire na boole muñ ak maandu ba faf mat seere na boole muñ ak maandu ba faf mat seere noonu la nga soxor ndax ji jigéen la yàlla yan lu góor attanul ak non attends foofu ah. nga ni jigéen la yàlla yan lu góor attanul exemple wasi nag boo tax nampal la góor mënul est-ce que du ko mos a mën gis nga ci <laughs> ci biir nag parce que damay faral di jox jigéen cere moo tax ma naan weex du weesu kaalu ñuul du passé kukk nooy du romb nag yàlla ramul la yam mais en tout cas bu ne ñuul kooku kenn du ko weddi avec la complicité de Ramatoulaye nga jox ñu ko quelques trois secondes rek le temps que ñu terminer en beauté l'émission Seydi Babacar lay indiwaat سيدو سي مالي علي بوي مي سي سامباي نالي ay moo ko waxal boppam moom Secka delloo ko it ànd ci ak moom moom muy baaba waaye it euh, émission bi xam naa ni it euh, dañuy parce que it euh, xëcc na jëm jeex àgg na ci tàkk. Hmm. waaye kenn ku ne xam ni bu nu jógee Baara day toog ànd ak Sista Thiaba la Médinoise la Noire Sœur d'Ébène et kontaan loolu nag ci ñi nga xam ni danaa ci ñëw léegi ci baie vitrée bi Secka maa ngi lay gërëm di la sant. Hmm. sagal nga ma. Hmm. te it sagal nga wal fajri. ndax noonu lañ la woo. nga am geneen gànt doo fa dugal te boobaa duñ def lu dul làmbi feneen. en tout cas tout le respect. nous vous remercions du fond maa ngi kontaan trop nag di gërëm bu baax. ni man ak ñoom suñu gisante sax mais Seydi Babacar bee tax tout le temps dañ may woo dima ma teral muy Modou Xari Mbuub Abdou Mbuub ak euh, Khoudia Sarr ak sama sëriñ Cheikh Omar Sow bu Medina Gounass. ñii seetaanuñ la ci sa combat bi daal. waaw ñoom seetaanuñ ma. dañ jàpp di gërëm bu baax nag Adja Dieynaba Fall. Adja Dieynaba na Adja Dieynaba Fall. mooy Gaynde Waalo ak góor gi président communauté rural bu yeen ok ak soxnaam Coro Fay yaayu Ibrahima ak Khady mais Dieynaba Fall gaynde waalo maa ngi koy gërëm bu baax ndax morso Seydi Babacar ci teral na ma ci teranga boo xam ne faw xana waaw dafa bëgg lool Seydi Babacar ñoo loolu xam nañ ci moom euh, elle est une fervente tidiane lépp lu mu wér di ko ci ku tedd kooku rek yàlla na ko yàlla yombalal amiin euh, di profité di saluer bu baax jabootam ñoom Iba Sey ñoom ñëpp euh, di kontaan nañ ko di ko bëggee bu baax a baax Penda waaye di bëggee it euh, Madiane ma Mandiaye Kébé Mandiaye Kébé nekk Fass Barigo di kontaan ci moom bu baax ay euh, Aïssatou Diagne sama kulowee namm naa ko lool waaye jàppale ni it euh, ajaratu Penda Diallo du ñu mës a seetaan ñu wéet di kontaan ci yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel saa su nekk en tout cas Walfadjri votre fidélité c'est notre fierté nit la mu gëm du ca yëg benn coono da ciy dem ba jeex ña mu jaaxal kay ñooy sonn à demain arrivé Fatou Diop Mami Dieng ak ak jógati tàggu yàlla rabul izzati jigéen sama jigéen mbaa jigéen Moussa Ka laay royati jigéen ñu baax ñi laay wayati jigéen sama jigéen jigéen na dooti jigéen na topp yàlla ak yonen ba topp borom këram na mu yenam ba jigéen sama jigéen yaa ko def soxna njaxat dama lay way du yaa ko def ku jigéen du baax jëlal way wi yaa ko moom amul xaaji amul seen yëpp laay wayal jigéenu Sénégal jigéenu Gambia gis ngeen bari demi yéen a mu jóg Sëriñ Mansour Si Malik Mami Asidu Si Malik Ali Boy mi sey sambay naare maam la nuy waayal mbër mi kenn tëggaalewul te mu daan moo di kan ki ñu laxoon bi gan ka ca barsax tey wax ak ñi fi ne moo di gan bàyyu sëñ Mansoor bàyyu Seex Tijaan Maktoum si moo di may-may di yënguwul moo mbër mi kenn tëggaalewul tamu daan moo di gan ki ñu la xoon bi bal yi naa ne moo di kan bëri xam-xam bëri may-may bëri sañ-sañ ci diina ji Dramane sama turandoo ragal péete dafay xañe wërsëg fi ma féete ku fa féete war nga koo wane Serigne Babacar si bàyyi sëñ Mansour si laa doy waaw gaynde waalo ki mu gëm moo di kan xam-xam bëri may-may bëri sañ-sañ ci diine si maalige moo di kan nitu yàlla akub dafa bokkul sëriñ Babacar Si mooy nitu yàlla mu bàyyi ko ki ko wóolu samsu diine sa tur bi mamu da deme tay raxuloo diine xalifa yaa mata wóolu la mu daan def nga def tayit la mu daan bañ jëfe woo ko na yàlla fay la ci loolu sunu yonen ba altine bu si wuuteem Serigne Babacar si altine bi su wuuteem sunu yonan ba nekk a la faatoo Serigne Babacar si nekk ya asukal la faatoo kon ku ci sagan ku ci sagan ku ci sagan ci Babacar ku ci sagan waa Thiès ku ci sagan waa Louga ku ci sagan waa Kaolack ku ci sagan ci Babacar ku ci sagan duma sagan ci maami Asimu Sëñ Mansour gan ci maami Jamil mu kuy taalibe Seex jugal yëngu ku ci yëngu yàlla nga yëngu ba àjjana émission keppaar gi talaata bi ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu Ndeye Koumba Diop fas yéene waxtaane déclaration bi nga xam ne moom la njiitu réew mi Macky Sall daal di def ci wàllu. moom la sénégalais yi nekkee ndax wàllum yàq boobee dëgg la am déet laa ci tamit ndax njiitu réew mi li nga xam ne moom lay woote ndax moom jiitu na ci seen kàddu nag ñu ngi koy xaar ci 88 628 99 99 114 628 99 99 114 bu ngeen bëggee bokk ci waxtaan wi Ndeye Koumba Diop dina dalal ci plateau keppaar gi ab économiste ngir waxtaanee lu ni mel maanaam yàq nga xam ne moom la président Macky Sall wax ni moom la sénégalais yi dëkkee keppaar gi talaata ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu ci Walf FM Walf TV bëccëg talaata àllarba alximis auzu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahimi la hawla wala quwwata illa billahi al azimi rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ñëwati nañu ci seen thème bi ñuy wax yoor yoor fii ci wal fajri ci eh, ci njiitu caba tey mu wéetal ñu lool gis nga bu seen ma tàmbali rek c'est parce que maa ngi koy jéem a toppandeendi ndeysaan le la tànk mu dikkaat dafa am fu mu dem doxi ay yitte ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax di nuyu nuyu euh, jàmmoo ak salaamoog réew mi biir réew bitim réew euh, teg liggéey bi nga xam ne mi ngi tegu nuyoo bi ci loxos loxol ajaratu Penda Diallo Gueye Ramatoulaye Sall ak ki nga xam ne mooy Abi Ndour mi ci jàpp ba nga xam ne moo tax Njaga Sekk mi nga xam Njaga Fall mi nga xam ne moo ma jàppale tey mel nii mu mel ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci liggéey bi ñoom Mamtulaay ak ñëpp daal euh, tey di le 27 Njaga bu ñu waxee 27 sunu xel day dem ci at mi nga xam ne mooy mi Serigne Touba génn àdduna fii ci Sénégal waaye bu ñu waxee 27 mu tombeek anniversaire Serigne Abdou Khader nga xam ne yàlla lu mu la jëlal dala koy fayal. muy ñeenteelu xalifa Serigne Touba Serigne Touba ku xam numéro am dañuy wax ne sëñ Bamba numéro 4 ca Ndar muy bis boo xam ne ñu ngi ciy siyaare bu baax bu baax ci turu Sid Lamine ak wal fajri nga xam ne xaritoo gu mu xaritoo ak bas Bass Abdou kenn umpale wu ko xaritoo gu mu xaritoo kër diine yeeg yoonu murit surtout rawatina kenn weddiwu ko kenn nattable wu ko muy loo xam ñu ngi koy teg ci loxol sëñ Sidi Makhtar mbàkke di ñaan yàlla mu yàgg fi te wér. teg ko ci sëriñ Sidi Mbacke Abdou xaadar ñëw teg ko ci sëñ Bas ak sëñ Fallou suñu xarit ba sëriñ Jower ba ak ñëpp ñi nga xam ne daal ñooy ñii dem di màggali ak ñi demul sax di màggal bis bu mag boobu nga xam ne sëriñ si bu événement yi baree feet yi bari xew yi bari mbumbaay mi bari ban koy jàmbat wala sax am ñu naan da ngeen di feetu xëy na xamuñu économie réew mi ni muy doxee xamuñu ne Sénégal feet yi moo ko téye waaye ñaan yooyu moo indi stabilité bi boo gisee jàmm di am xéewal di am c'est parce que fu nu toogee fukki nit daje fa mën naa am wàlliwu nga ci rawatina nag fu junni nit tase ci ay wàllu yu bëree bëree bëri ñu tàllal ñaan yàlla looloo